yaakaar naa ne nag dina yomb ñu présenté leen li waral suñu jataay bi mooy dañu gis ci réew mi jamono ji ñu toll ci situation wu daara ay nit ñoo xam ni dañuy génn di wax ci mbir yooyu te loolu nga xam ni moom la ñuy wax ñun ñi ñu am ci ay taxawaay dañu gis ko fépp partout fan yi lu ngeen ko ci réseaux sociaux yi ci télé yi ci internet bi tout ñun ñu nekk ay doomi daara génne ci daara daara def ñu nii mu ñu def ñu wëlbatikuwaat nekk ay doomi nekk ay sëriñ daara ami daara kon yaakaar naa ne bu ñu gisee lu mel nii di di di di daw war nañ ci am xalaat ak ay jàngat beneen ba ci topp mooy ñu bokk ci benn kuréel boo xam ni dafa am ci programme mu kuréel boobu benn volet boo xam ni ci pass 27 la ñu si tënk mooy protéger xale yi kon nag bu ñu gisee lu mel nii muy génn si daara wëlbatikuwaat nekk ci xale yi war nañ ci indi ay leeral yu bëree bari ba nit ñi comprendre ndax ñu ngi ciy déggee nu ñu ngi ko ciy déggee ak xeetu wax bu nekk donc li ñu ciy leeral mooy. xale palaasam mooy daara kon daara mbir la moo xam ni dañu ko soxla ci réew mi dañu bëgg daara bëgg koy yaatal bëgg ñépp xam ni réew mii daara dafa bokk ci li koy doxal loolu nag ñépp dañ ko war a xam aussi ñëpp dañ ko war a comprendre bu ñu gisee nag ay nit ñoo xam ne dañu jóg bokkuñu ci daara wàlliyaan si ci daara wala ci image daara bëgg ko mbubboo pour yàq dafay jot sëkk ñu taxaw alerte wax ni ah am na luy raam te ci ñàkk bi la jëm <laughs> loolu nag lu yomb expliquer lay nekk. ndax bu ñu xoolee dëggantaan lan mooy daara ak lii am ñaari mbir la yoo xam ne yu wuute la daara pour yar xale la ak jàngale ak saytu mooy protéger xale yi bu ñu ko dee wax ci tubaab mais ñu gis ay nit ñoo xam ne dañ ci wàll yaan si ñëw di utiliser xale yi jël leen teg leen ci mbedd mi di leen yalwaanloo suba ngoon guddi ci loo xam ni seeni i yi seen i intérêt yi bopp kese la war nañ ko leeral te ni ñu koy leeral nag mooy ñun ñi nga xam ne ay doomi daara lañ ñu jóg taxaw wone ni lii di ñëw bokku ci loolu nag bu fekkente ni dafa am ñoo xam ne dañoo jóg ñëw di ko def di ñu ci jàppale ñooñu suñu taxawaay mooy ñu jàppale leen accompagner leen nekk ay partenaire ak ñoom te mooy état yi nga xam ni jóg na nit bu benn xale nekkati ci mbedd mi xale place am mooy ne ca daara ja jàng hmm. mais pas ci mbedd mi di yalwaan te tey loolu ñëpp mën na teg nañ ci seen bët ndax boo xoolee da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy xëy di yalwaan suba 7 du matin ba 1 heure du matin. ku mu ci neex ci yéen mën nañu ànd ak sa caméra ma firndeel la lool bu ñu demee fii Almadi guddi boo ko demee da nga fay fekk ba 2 heures du matin ay xale yu ndaw suñu paree tëdd ci taatu miir yi fas yéene faa nelaw te ku ne xam na ni ak situation bi ñu nekk ak mbas mi laajut loolu beneen ba ci topp mooy loolu protéger wul xale yi ndax yàggul dara yéen ngi fiy dégg ay accident yoo xam ni ay xale yu ndaw la yu oto yi di fiir dégg ngeen fi yàggul dara yàggul dara benn bulldog boo xam ne fii daf fi màtt benn xale bu ndaw ba mu mujjee faatu te loolu lépp dégg ngeen ko loolu lan moo ko waral parce xale yi bàyyi exposé leen ci bedd mi ñu nekk ci ay danger nag ñun waa daara dañoo war a jóg xamal askan bi ni ñii li ñuy def du xeex daara du yàq daara waaye dindi image boo xam ne dañ ko bëgg teg ci kaw daara taqal leen ko te bokku ci te loolu lu neex a firndeel lay doon ndax bu ñu xoolee dafay am ay lobby yoo xam ne bu ñu ñëwee au lieu ñu samp seen yëf bopp déedéet dañu dem uti ay nit ñu nuroog waa daara ami sikkin yu weex tàll yu gudd takk ay kaala ñu jël leen jiital leen ci xeex bu ñuy xeex diine ñooñu nag suñ génnee di wax dafay mel ni nitu diine ak nitu daara mooy wax alors que benn waay mooy wax boo xam ni ay lobéewa nekk ci ginnaaw loolu nag lu mat a leeral la te itam dinañu insha allahu rabbi bu ñu paree ci programme yi nga xam ni moom la ñu def dinañu tënk plan d'action boo xam ni dinañu daal di jublu daar daar ni ko ni ñu ko bëggee ci ñun doomi daara ak ñi nga xam ne kuréel gi nga xam ne ci lañu bokk noonu lañu ko bëggee pour protéger xale yi def ay plan te loolu nag dina dinañu ci dem ci mboolem ëttu këru kilifa diine yi ci xalif généraux yi dinañu dem aussi ci ñi nga xam ni ñoo yor daara waxuma ñi mbubboo daara de di yalwaanloo xale yi dinañu dem ci ñi nga xam ni ñoo yor daara waxtaan ci ak ñoom te loolu mën nañ ci indi exemple yu bari ndax tey jii boo demee fii ci Dakar di nga fi gis ay nit ñoo xam ne seeni daara doo leen gis ci mbedd mi seeni sëriñu yi daara doo leen gis ci mbedd mi doo leen gis ci benn manifestation bu ñuy def ci yii nga xam ni yu ñàkk solo la man mii fi ma doon jànge mën naa ko tudd sëriñ Xaadim Ñang Naylul Maram fii la nekk fa laa jànge ba mokkal alxuraanul karim samedi ba samedi laa doon génn mosumaa yelwaane mosuñu maa teg ci mbedd mi di ma yelwaan loolu tey boo demee ku mel ni Serigne Modou Gueye mu ngi fi sëriñ saalimu Mbacké mi ngi fi dem leen Kébémer ku mel ni Serigne Ndiouga Sylla mi ngi fi dem leen Touba ku mel ni sëriñ Mame Bara Mbacké Xidmatul Xadim ma nga mën naa ko bu lim ba suba ay nit ñoo xam ne dañoo ami daara doo gis seen benn dong ci mbedd mi waaye ñoom ñoom ñooñee nga xam ne wóor nañu ni ay sëriñ daara lañ doo leen leen gis ci. yii ñuy gis ci ñii nga xam ni dafa am ñu nekk ci seen ginnaaw ñoo bëgg a mbubboo daara pour yàq liggéey bi nga xam ni moom la moom la lislaam am te ku ne xam ne ne gis ngeen ni jamono yuñ toll nit ñi nekkuñu ci lenn lu dul xeex lislaam xeex daara ak yàq kon nag suñ dee jël ay nit ñu mel ni nitu lislaam ak nit ay nit ñu mel ni nitu daara di leen monte ñun waa daara war na nañoo taxaw nit lii kat dañ ci war a jug pour mu arrêté te bu ñu xamee cosaanal daara dëggantaan lan moo sos daara Seydina Omar ibnul Xataab moo sos daara ginnaaw yonent bi ak Ababacar Seydina Omar ñëw bi mu nekkee xa bi mu nekkee amirul muminin ci la indi daara lan moo taxoon mu indi daara lu mel ni tey lii nga xam ni moom la état bi jóg te am ay nit ñoo xam ne dañoo gëm daara nekk ci loolu moo doon sabab bi sabab bi moo doon lan Seydina Omar dafa gisoon ay xale yoo xam ni dañoo nekkoon si dëkk bi mënuñu amuñu woon amuñu woon doole ba pare doon dem ak ñëw comme ni ñu koy defee mu dajale ñëpp xale yooyu dugal leen ci benn kër di leen dundal ci lal la leen doon dundal ci baytul maal loolu ñuy jàng walla ñuy dégg xam nañ bu baax li may wax. donc kooku kon lam doon xeex mooy bañ xale nekk ci mbedd bi bañ xale néew doole bañ xale taxawaal bañ xale silim bañ xale di dee ci ay de ay anam yoo xam ni du yoon cause boobu la Seydina Omar muy Xataab doon xeex ba tax mu créé daara. daara ji mu jëloon ko joxoon ko ku tudd Amir ibnu Abdallah moom la joxoon daara ji mu yore ko. cause yooyu mu doon xeex bu ñu gisee dem ba gis ba lislaam di dox di dox ba suñu jamonoy tey ñu gis ay nit ñu wëlbatiku ñëw ni ñoom la Seydina Omar doon def sens contraire la def kon nag suñu njox day daal di ñaaw nag ci nit ñi kon li lislaam doon doxal jamono Seydina Omar muy rafet ba heure bi moom lañ bëgg salfaañe te loolu war ñu ko setaan te dañu war a xam ni daara ñi ciy génnee ñooy yor réew mi ëllëg te loolu mën naa si joxe ay firnde aussi économie wu réew mii ñi ci ëpp doole ci ñu koy doxal ay doomu daara bu ngeen demee ci banque yi ñi fa ëpp ci lu ñuy versé ci xaalis ak ya ca aju araab la ñuy signé ay doomi daara tey mën naa si joxe ku mel ni sëriñ Dia bu Sénigo xool leen Serigne Dia li mu taxawal bu Sénigo ak li muy def ci daara ngeen koy dégg ci jamono yi yëpp mën naa si tudd ku mel ni Serigne Mboup xool leen li muy doxal ci mbiri daara mën naa cee tudd ku mel ni sëñ Lo mii moom tey lobbu gaas maam jaara ñu baal ma ci publicité bi mën naa cee tudd téeméeri téeméeri téeméeri nit yoo xam ni mm. ñuy doxal économie économie réew mi dëggantaan kenn mënu leen ciy génn te ay doomi daara lañ mais est-ce que ñooñu bu fekkoon seeni papa ak seeni yaay dañ leen a jël exposé leen ci mbedd mi dinañ yelwaanloo de sept heures à une heure du matin ndax dinañ mën a réaliser li ñu réaliser ndax bu fekkoon sëriñ daara yi ñu leen joxoon dañ leen a jëloon teg leen ci mbedd mi di leen yelwaanloo ñuy indi di leen jox di leen defal ay sas ñuy fanaan ci mbedd meeg dafa yendu ku amul sa sas sax doo ñemee ñibbi ce que dinañ mën a réaliser li ñu réaliser tey déedéet dañ leen a yóbbu woon te daara ja naam bu doon dañuy dem sax di yelwaan yi waaye ñu boole ko ak njàng mu wér ba tey lii ñu mën a réaliser ñu mën ko réaliser loolu nag dafay baax bu situation yu mel ni amee ay nit jóg bëgg a mbubboo diine bëgg a mbubboo daara bëgg a yàq l'islam ba pare bëgg koo teg ci kaw yi ay nit ay deri ay deri jàmbur ñu jug nag leeral ko ni lii fii la jóge fii la jom